Calibre fast mouth, calibre fast mouth, calibre fast mouth, 100 francs la amul weccet bu liyeeg calibre face mouth, calibre face mouth, calibre face mouth, waaw waaw ñoo leen yeeg calibre face mère sa paanu jën bopp bi mais sëfër li ngay xotti neex na waaye sëfër li ngay dawal ci la bu ànd ak 90 bulet teg ko ci de. sëfër nànk bokk yeboo ay xar wala da jàng dawal. góor gi noppil man ba may dawal juddoo góo. waaye da kàcc doo tus mënoo dawal. gis nga kàcc googu nga wax nag bu ñu eggee këli rek Fass Mbaw na nga ci dellu. ah bakk nga njàkk yow xanaa xamoo ma. man la passe Souloukhou Ndiaye ancien combattant matricule 259 F10 30 le vieux qui neutralise tous les sénégalais bandits du continent na auto bi egg face ba ma toj sa lug waaw ñoo leen passe si Per. père père ñoo leen passe góor gi père télé ba 100 francs la sànq bi ngeen di yëg ko wax yéen ñëpp 100 francs la indil 100 francs wala nga wàcc ah prante yak si sëfër daal da ngeen di jaay bandi bandilu leen di jaay bandi Ada ini pandai-pandai lo. Eh, safar, mereka mu wace, mereka mu wace, safar, mereka mu wace. Waaw waaw, bura sa oto bu mu wace. Waaw waaju baax. Waaye lan lan la da ngay jaay kooba. Fii laay taxaw xaar safar bu wàcc. Ma ci faa leen ci faa yu metti, sa réefu kase gël. Eh boy, pujul mak kabo, anak ka, kabo kabo. Ah, perlu deh kabo nak karena kabo ketek bobi. Wah, kita boy, mana merah deh. Kamu deh kill man. Eh, Persephone bayar nyore. I, gurde. Ha ha ha ha ha ha. sunu Sénégal ana ngeen fu ñu mën a ne jóg leen dañu bëgg naataange maase leen sunu Sénégal ana ngeen fu ñu mën a ne jóg leen dañu bëgg naataange